mbooloo mi bi mu ne jërë ngeen jëf. ne gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi. yàlla mi nga xam ne moo ñu mayoon. ñu tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim. mu may ci alhamdulilah rabbil alamin defee ko ci barke Moustapha sallallahu alayhi wa gannaaw bu ñu sant yàlla julli nañ ci moom. ñu ngi gërëm Maolana Seydi El Hadj Omar. nee yéen ñëpp. ak jigéen. góor ak ndaw. mag nee kenn ku nekk ñu ngi lay gërëm. ngërmaane loo xam ne. am na tàmbali. waaye amul fu mu yem de. mënu ma ko yemale fenn de. ne mënu ko yemale fenn. xam na nag fu mu ko tàmbalee. fii fi jëf tàmbalee. ndax fi jëf tàmbalee. fi la tàmbalee. fi la cant de tàmbalee. waaye jëf ji. waaye jëf ji. wala doggante wut. wala doggante wut. gi day wéy bu nekk rek. gi day wéy heure bu nekk rek. moom doggante. cant gi ne jëf ji doggante ndax masuñ koo jëf lépp. mu fekk ko mu fekk toog. te masa toog. dégg ñu ne jeexut nga sama ñàkk a dikk. dégg ñu ne jeexut ndeg ñàkk a dikkam. mosuma dégg. masa dégg loolu. takk takk ñu koy liggéey. takk na ne ñu koy liggéey. seen xol yi bëgg nañ bëgg nañ li ñooy liggéey. seen xol yi bëgg nañ li ñoo liggéey. xool nañ li ñooy liggéey nañ it li ñooy liggéey. xool nañ yàlla mi tax ñu ko liggéey. xoolu nañ yàlla it mi tax ñu di ko liggéey. xoolu nañ it barke Maulana Seydi El Hadj Omar. mu ne ndax koole moo lépp de. kon sant na mag. sant na ndaw. sant na ndaw. moo xam góor la wala jigéen la. moo xam góor la wala jigéen la. gërëm na ñëpp. gërëm na ñëpp. moo ci lépp itam. sedd na ci lépp. li mu wax ne tool bi ne li moom it wax ne tool bi sëriñ bi. sama baay baayam day. tool bii moom moo moo sabab tool bile baayam a moom mu def fi bay. bi fi tool bee xamat ci kaw sulaa bi làmmiñam bi fi ci kaw làmmiñu sëriñ bi. toolam fi woon boo xam ne. toolam fi woon boo xam ne. sama mag Seydi Hadj Mansour. magam Seydi Mouhamadoul Mansour. moo ko gunee kër Malick moom la ko gunee kër Malick ñoom jëm yaa ñoom ko daan bayal Babou Guèye. ñoo ko daan bayal ak Babou Guèye. baabu natu cokkat maa leen ñoo bokkoon da ko bàyyal tool boobu le mu daan ko fi yónni man sëñ Mansour daan ko fi yónni moom mii bi mu fi nee tuddee bi mu fi nekk tuddee ñu walbatiku tool ba tuddee ma ñoom tuddee ko moom mi le tool ba tool boobu fi tool boobu le ne fi bi ñu dee jumaa ji bi ñu dee jumaa ji baayam Seydi El Hadj Omar mag ñi fi dajoon ci daan ba ci toolam bi mag ñi fi daan dajee di dikk ci tool bi mu ne leen ne leen kile de laa indi kile de de Basiru moom laa fi indi mu nekk sama bët mu nekk fi sama bët. nekk fi samay loo. nekk fi sama làmmiñ. nekk fi it sama tànk. kon nag. fay moom fay bay. bay. tool ba ngeen ko. ba ngeen ma daan bayal wëcci leen ko. dox ko jàtti. dox ko jàtt. da bayal. da ko bayal. loolu mu ne loolu li la fa mag ñooñu wane ne ko ba. ko ñun tool bi ñu la daan bayal duñ ko ba. fañ koy booleeg bi da ko bay. fañ koy ne yàlla dogal na. dëkk gi sax amut. ne dëkk ko ñu ko da ba tey. ñu ko ne da ba tey jile. masuñ koo baax. masuñ koo baax. yàlla dogal na loolu. ñu boole ko ak tool sëriñ bi. ñu boole ko ak tool sëriñ bi. bay yàlla wàccee ko. ba yàlla wàccee ko. Seydi Muntaxa dafa bay tool. Seydi Muntaxa dafa bay tool. ñu boole ko. ñu boole tool yooyu. da ko bay. da ko bay. Seydi Muntaxa génne jamono. Seydi Muntaxa génne jamono. El Hadj ñaan ma. Cheikh Lahab yim ñaan ko. ne ko wala yow fañ la fay defal tool te loolu bàyyi santaane. ne ko wala la fay tool. te bàyyi santaane woon ñu defal la fa tool. faa bëgg nga santaane faa bëgg nga santaane. fa defal tool mu ne ko bisimilah. fuñ ma daan mu ne ko fañ ma daan bayal. nañ la fa de bayal. fañ daan bayal. fañ daan bayal sama baay. ñu dama fa bayal. ñaari tool yoo xam ne. ne ñaari tool yoo xam ne. ñu ko moom ñoo bokk benn baay. ñu ko moom ñoo bokk benn baay. ñu boole leen bay. ne loolu fi la rek la am. li tool yi bëri bëri bëri. li tool yi nit ñi da ko bay. nit ñi da ko bay. li taalibe yi am pas-pas. li taalibe yi am am pas taalibe yi ñu de bay ñaari tool yoo xam ne. ci genn kër gi la. ne fii dong la am. fii rek lañ ko defee. buñ xëyee ji bii. buñ xëyee ji bile. bu bu jeexut it. bu jeexut it. ñu dellu jëm ci bële. ñu dellu jëm ci bële. ñu boole ñaari yëpp bay. gërëm mu ne lool la gërëm nañ ko. ni ma gërëmee. mu ne ni mu gërëmee. moom moom Seydi Habib noonu la gërëmee. ñëpp noonu lañ gërëmee. ñoom ñëpp noonu lañ gërëmee. ku bokk ci Seydi Alaaji Omar gërëm na. koo xam ne ci Seydi Alaaji war nga bokk gërëm na. seen xol sedd na rimu ci yéen. seen xol sedd na rimu ci yéen. ndax. ndax. àllarba jëlee. Daaru Salaam lañ nekk ba. Daaru Salaam fukki waxtu jot ci guddi. ba une heure jot ci guddi. àllarba jëlee ba une heure ci guddi ñu ngi ci àll te yàlla rekk lañ doon wut. te yàlla nag wut. mais yàlla na ku koy wut. sooy lamb. fa ngay lamb. doo daj de. soo di font dara du la xeeñ. fekkee soo bëgg gis gis. soo bëgg gis da xool it doo gis. xoolu lay doo. xoolu rek laay doo. rek laay doo de. xoolu ne li nga xoolu nag. xoolu te ko dëggu. soo ko xooloo te xoolu ko dëggu. boo lambee da daj. boo lambee da nga daj. boo dana dana xeeñ. boo fontoo dana dana xeeñ. boo xoolee da gis. boo xoolee da gis. Ah, mu ne waaye loolu le. maanaam wii laay doon. maanaam wii laay doo. làmb yàlla daj yàlla wot foo ne ne foo a ne fa. moo la gën a jege. a jege. min hablil warid. min hablil warid. waaye yow mënoo gis xam nga. mu ne waaye yow mënoo ko gis. bu fekkoon fa lu mooy xeeñ du la xeeñ. bu fekkoon fa am lu mooy la xeeñ. wante mu ngi lay xeeñ. wante mu yaa ngi koy gis. yaa ngi koy ndax moo waxoon ne. ndax moo waxoon ne. soo ma jaamu. soo ma na nga mel ni. na nga mel ni. soo bëggee jaamu gi rafet. na nga mel ni maa lay gis. na nga mel ni maa ngi lay gis. ni ma gisee. ni ma lay gisee. na nga mel ni yow it yaa gisee noonu la. bon ji it. mu ne ji it. noonu la mel. jëf ji moom noonu la mel. ne ji moom noonu la mel. ne moom. keroog biñ koy ji. koy ji. ñëw na fi. mu ne yaakaar na ne ca la fa gëjee. fii ci fii. bi ñoo bay sunu si dëkk na fi. waaye ba mu wàccee noonu la jaar dem. delsiwaatut fi le. kon tey la fi delsiwaat. mu ne loolu la jafe na de. ñu la ko liggéeyal. Hmm. yow du la buur. ñu ragal la ne nguur gee tax. duut ay koppar nga amee mu de xaalis. ñu xamem ca xaalis ba. ragal ne nañ ko bay nañ ko liggéeyal. ndax ñu jox ñu ci. yi. mu ne yooyu la duut ci dara. gisuñ ci yow lenn. lu dul as si njëmm. ah képp moom lañ gis. xoolatuñ lenn. lu dul kabiru. subhaanahu wa taala. yàlla mu ne na moo di fay mm. mu ne xolam sedd na rimm mm. ah. ne xolam sedd na rimm de na yàlla nag moom moo di fay de kenn du fay ku dut moom mm. ne ni xolam di seddee yàlla na ko suñuy xol seddee suñu xol yi yàlla na sedd rimm ñun ñëpp. nee ñun ñëpp. góor ak jigéen. góor ak jigéen. kenn ku nekk ba ngay jóg. la nga xamee moom. nga xam ne moom nga xamee moom. ci sa bopp. wala ci sa njaboot. sa doom ja góor wala ja jigéen la. wala su ci soxna nga ko xamee. wala sa dëkkandoor. yal na yàlla may la loolu la de. su fekkee loo ragal la. yàlla na nga ca mucc de su fekkee loo ragal la ci ñoom yàlla nañ ca mucc lépp luñ jaam yàlla nañ ko muudoo de wala mooy jeex yàlla na yàlla maye leneen xaaja yi ñaamee yiñ xam te mën leen a tudd yàlla na yàlla faj ko yiñ xamut te yàlla xam ko te man koy faj te moo koy faj yàlla nañu ko fajal jàngoro ci yaram yi ten xam leen man leen a tudd jàngoro yooyu la yal na yàlla faj leen yiñ xamut te ne ci biir yaram yi te mënuñ leen a faj moom mën na koy faj yal na ko faj jàngoro yi ci xol yi yal na yàlla saafara leen beekoor yal na yàlla dàq ko ci ñun kulli yéen beekoor bu mën a dox yal nañu mooy ya ñàkk gu mën a dox yal nañu mooy bakkaat bu mën a dox yal na yàlla bokk ci ñun musiba bu mu mën a dox. musiba bu mu mën a dox. yal na ñu mooy. lépp lu mu bind. jaat mi li ci ay xewal xewal yooyu la yal na ñu ñaal lépp luñ ci bind ci safaan yal na ñu mooy de. ku ca amee métti métti mu mën a dox yal na barke ci sa loo bu dee sa boor nga yàlla bal def accident te yal nga am oto yoo xam ne yaa ko sa bopp ca war da dem fa nga bëgg a dem. bu ci accident am. bu dee kuy ñaw bu na yàlla jox ko machine. machine yi xew ci jamono bi. mu de am ñaw yi mooy ñaw. te bu mu coxot kenn. te lam ca bëgg mu am ko ca. kuy jaay. yàlla nga am loo de jaay. te lépp loo jaay yal na jar. te yàlla nga ca am bénéfice. ku de liggéey meneen métier. moo xam mos moson la wala leneen la. ba xeeti métier yi daj. métier mucc nit xame. lan ca bëgg ci barke. barke jamaano. yal na yàlla jox la ca loola le. client yu bëri. liggéey bu bëri. te ngay jot ca xaalis ba. mu ñu teg ko solo. te bu mu yàqu ci solo. yal na ko yàlla def. ñiy bay. yàlla barkeel suuf seen loo. luñ ji ci suuf yal na sax. bu saxee yal na baax. bu baax. barke yàlla na barke bu barke yàlla nañ ko muudoo njaboot gi su fekkee dañuy jàng yàlla nañ xam bu ñuy xuut yàlla nañ am bu fekkee fañ yaru yar ba yàlla na yokk su fekkee am na loo ragal ci ñoom ci ak jeng yàlla na yàlla dëpp leen jubal leen baaxal leen alquran yàlla bu mu fay mukk ci suñu xeet liñ jur ak li ñuy juri ëllëg yàlla nañ nekk jullit lépp loo xam ne safara la jëm lépp loo xam ne safara la jëm ëllëg yàlla bu mu génn ci ñun de lépp lu génn ci ñun boobu ànd na di tas yàlla buñ doon ko yéefér yàlla buñ ko juróol safara mukk yàlla buñ juróol safara mukk yàlla buñ juróol seytaane noon fu mu mën a ne yàlla na yàlla musal ñu caayam wa dëkkandoor xàq ji war suñ digganteeg moom yal nañ ko man a joxe waaye moom yal nañu man a jox xàq ji ñu ameel ji nga xam ne dox na suñ digganteeg moom bor yi ñu leb yal na yàlla may ñu koom-koom may ñu naataange ak bot bu man a doon ak yal na yàlla may ñu naataange juñ ko mën a faye waaye suñu ko mayee it yal na may ngor bañ bañ mën koo fay ba mat sax yàllaa ko mën bakkaat. bu mu mën a doo yal na yàlla bokk yàlla baal ñu bakkaat yëpp yëpp yëpp fan yi yal nañ gudd lool yaram yal nañ wér xeeti jàngoro yi yi gën a xojal nit ñi ci réew mi te gën cee nekk jàmbat mu ne indi nañ ci ab ordonnance léegi ñuy wax tension diabète cancer gi ci gën a bon ak yeneen jàngoro yeneen yi tànk yu ak feebar yenn yi ne ci biir biir yi ci xol yi yi i tànk yi ñooy doxee yi ci ndigg yi yëpp ñëpp da ko jàmbat feebar yooyu la yàlla leen bind yal nañ dellu fañ ba woon nit ñaam jàmm ja ñaamoon barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lu ñooy lekk tem lew dom yàlla mën na koo ko naan yàlla ku koy ñaan fa nga koy ñaan li nga bëgg liñ bëgg moo di ñam wa lew domm te neex ñam wa lew domm te neex koddaa lew te rafet te jot dëkkuwaay ya lew te dër lal ya nooy ñu ne ci tëdd da ca yeew dara jaamu te nga nangul ñu jaamu yàlla yàlla nag ñu ko moy mbooloo mile yàlla na yokk de ba bu leen sifar ngëb yàlla bu leen sifar benn ngëb mu ne am na sifar boo xam ne taxul ñu da wax ne yàlla moom lim na lim bind lépp lim bind lépp lim na ko takk ko takk na lépp xamut ku ko mën a réer wa ma antum bi faatineen mënuñ koo faat kenn mënta fexe ba a yàlla. waaye lim boobu taxul ñu wax. waaye lim boobu la taxul ñu da yal nañ bëri. ba ne modd ci kaw suuf wasak yal nañ ko am bu te lew doom waaw am wasak mu jëriñ wasak rek. mu ne xam wasak rek xam wasak rek. mu jëriñ wasak. mu jëriñ wasak. mu ne taxul ñuy wax waaye wasak wa lew. buñ xëyee ci aaju. balaa ngoon mu faju. buñ ci gonte balaa suba mu faju. loolu yàlla na am de yàlla ko man moo ko mën a dem. yàlla buñ taxawaalu. suñ morom mukk. yàlla buñ ñeetaan suñ morom. képp ku fi teew ak noo fi mën a sa xol bi nu mu fi mën a dikkee yàlla kii maye yàlla yàlla may la li nga bëgg yaa xam nag yow noo dikkee waaye la nga bëgg moom yàlla defal la ko yàlla defal la ko sa bopp defal la ko ci sa njaboot ñi fiy jigéen te de sëy seen sëy yàlla barke lu ci juddu yàlla dund yàlla baax yàlla barke kuy jàng yàlla xam su wutee yàlla am ku fi nekk te de gune jigéen bëgg jëkkër yàlla nga am jëkkër ju baax yoo xam ne yéen a bokk kër gu ngeen aju yàlla na ko yàlla maye jigéen ñi fi gune jigéen ñi fi ne yëpp ak ñi fi daan ñëw te mënuñoo ñëw tey ak ñi yóbbante seen xaaju yàlla na faju góor ñi fi nekk ñiy de dund ne yal na yàlla dimbale leen lu ñooy lekk lu ñooy naan fu ñooy dëkk lu ñoo xoddoo seen njaboot mu yomb leen luñ bëgg ci njaboot ñu am ko niñ ko bëggee yàllaa ko man yal na ko def ci mbaaxam gi ak yërmandeem ji ñi nga xam ne ñoo toggaañ bi yàlla buñ ko tëlee di yal na leen yomb de xaañ bu ñoo togg de ko indi file yal na leen yomb de du ñoo liggéey yal na barke yal nañ nekk mag mag yu jub mag yaa mboo sant ba waxtu wuñ ko waxee ñu mën ko indi niñ ko bëggee ba dootuñu leen ko wax ñuy ko def ci seen coobare yi bopp mu ne waaye ñoom def nañ. waaye ñi fi nekk ñëpp. kenn ku nekk bëggoon nga. suñ koy def nga toog añ fi indi ko indi ko fi yal na ko ñëpp man de yal na ko ñëpp man de mu ne ñëpp nañ ko man na yal na ko ñëpp man de li xel yi daj. te laab miñ mënu koo tudd te mu gën ci mbooloo mi le yal na yàlla defal ñu loolu le lu xel daj te laab miñ mënu koo te baaxut ci mbooloo mi yàlla buñ jot loolu le lépp lu ñu ragal nga xam na li ñoo ragal si caat na si lu mu mën a dox la ñoo ragal yàlla nañ ci mucc la ñoo ragal ëllëg yàlla nañ ci mucc li ñu xamee caat na si lañ lañ ko xamee nit ñi da ko am yàlla nañ ko am te bu ñu ëllëgee bu ñu ko hisaab yàlla ko man yàlla ko def mboolem ku fi teew sa xol sed sedd ku fi teewut te daan fi teew sa xol sed sedd ñi dem bar sax te daan fekkee tool bi te nekk duñ buñ nekkee ci mbaax yàlla na yokk ci nekk ci leneen te foogut ko yàlla jogale leen ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlana Seydi El Hadji Omar allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim nee ren fekk nañu fi yal nañu fi déwén fekk. nii ñu fekkee ko ren nii. ba de wàcc tey nii. yal nañu fi déwén fekk. bu ci kenn manqué. mboolem ku fi teew. déwén waxtu wii yal na fi teew. te yàlla gërëm ko. yàlla yàlla gërëm ko. yàlla yàlla gërëm. yàlla rek tax ñu def ko. yàlla rek tax ñu ko def. yàlla ko gërëm. yàlla ko gërëm. rasulullahi gërëm ko. bu yàlla gërëmee. rasulullahi gërëm. mu ne gërëm yi wéy na. ku gërëmul yaa xam waaye ngërëm yooyu la suñu amee. amatuñ beneen soxla ci ngërëm. ngërëmal yàlla daal yal na am. ngërëmal yàlla yal na am. yal na yàlla yal na yàlla xool ñu bëtam yërmandeem ne yaram yi ràgg nañ xool yi ràgg nañ yaram yi yal na yàlla saafara ko xool yi yal na yàlla sotti ci leer ba mu fees dell lépp lu ci nekk ci ayib yàlla dañ lépp lu ci ne xiit ñu suñu diggante yàlla loolu la yàlla na fi jóg alquranul karim yàlla bu mu fay mukk ci ñun bu fay ci ñun leeram bu mu ci ñun barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ dund ci diina dee ci diina dekk ci diina ku fi teew bokk ci kër Seydi Alaaji Omar yal na yàlla boole la ca tey boole la ca ëllëg soo bokkee ci geneen kër kër ga nga bokk la nga fa yaakaar yal na nga ko fa gis de li nga yaakaar it ba dikki fi le yal na yàlla wan la loola le barkeb rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne xaaj dikkee woon nga fi aajo te fekk la ko fi. bañ ko bay bañ koy bay. loo mënoon a joxe. loo a joxe. jox moom jox ko. moom jox ko moom it moom it jox na ko. bu dee ñaar dërëm la. bu ñaar dërëm la. ñaar fukk la. bu dee mu ak sukar boo joxe. foo ko mën a joxe ci tool ko ko mën a joxe ci tool bi. te fekkut ko fi woon moom. moom it fexe jot. teg ko ci loxoom li. moom it gërëm na ko ci loolu li. mu ne matal ko la goog la yombut. mu ne waaye lu fi nit joxe woon. ak soxla boo mënoon a tudd. fàtte la ko moom nit la. day fàtte. day fàtte. wala wala wala waaye yàlla fàtte wul. na ko bàttale woon. na nga ko bàttale woon. su fekkee mën na koo wax. su fekkee mën na ba wax ko ko. mën naa ko fàtte. moom mën na ko bëggee woon yàlla defalee la ko. waaye yow ma ko waxoon na defalee la ko noonu la. na ko bëggee woon yal ko yàlla defee noonu la. bu mu benn wuute. yal na yàlla la ko na nga ko bëggee. soxla suñ la yàlla faju barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne gerte ga gi ñu yóbbu kër Abdou peese guñ ko mu ne yéen a ko bay dekki ko bàcc ko bàcc ko peese ci des mu ne ñaay peese kat baa ngi leen di xaar foofu la ngeen jaar fa teg ko rek dem teg ko peese ko te wéy mu ne moom mu ngi toog fi la de nége gune yi bu dikkee mu ànd ak ñoom dem mu ne ngeen ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ko fi mu ne moom am na lu mu bëgg. am na lu mu ragal. mu ne lim ragal dëgg dëgg dëgg dëgg. moo de yàlla de. bu ragal ne bu ragal yàlla gi dëggoo. ragalatu leneen. ne yàlla soo ko xasee ragal. ba mu nangu ne ragal nga ko. loo da ragal ti amut. mu ne kon gëmu la ko de. doo ko gëm. leneen loo ragal amut. boo boo amee yaakaar. boo mu ne soo amee yaakaar. dëggu ci sa diggante yàlla. dëggu ci sa diggante yàlla. da tooyut da le. fàtte yaakaar ji nga ko yaakaaroon. fàtte yaakaar ji nga ko yaakaaroon moom yàlla. mu ne kon limaan des de. loolu dafa am ne waaye faam ay nitam. mu ne ñëpp de. mu ne fa am ay nitam de ñëpp yegguñ foofu la. mu ne soo yaakaaree. te li nga yaakaar yàlla la. bu mu la teree wax it nag sa soxla yi. mu ne waaye ki de yaakaar moom. yàlla rek la yaakaar. Ah. mu ne yàlla nañ mel noonu de. yaakaar ga mel noonu. Ah. ne te yaakaar ga mel noonu de. du wax kenn soxlaam. moom soxla kenn la koy Ah dana dana am solo soo wax nii. mu ne dana am solo soo xam ne. ba ba nga koo wax. balaa nga koy wax. fa ngaa yëg soo waxee mu faj. fa ngaa yëg ne soxla si la su ma ko waxee mu faj. fekk wax nga ko ki nga xam ne moo ko faj. fekk wax nga ko ki nga ne dana faj. ba mu la ne dana faju. loolu ne waaye loolu bëgg sama soxla faju. mu wan la fu ma fajoo. mu wan la fu may fajoo. mu ne loolu yombul mu ne loolu yombul. mu ne ku dem da wuti. boo xëyee fa ngay gàddu sa mbuus gi rek dem doo xam fu mooy fajoo waaye ki toog fu mooy fajoo mu ne ko le du dem. faa jekki néegam ñu fekk ko fa faj. loolu loolu yombut. loolu yombut. ak fa war a jekki. mu ne ak fa nga war a jekki. ne ku ne ak fa nga war a jekki. mu ne ku ne ak fa nga a jekki. bu nit ñi nee ca kaw. mu ne su nit ñi nee ca kaw. te yow ci suuf ngaa jekki. te yow ci suuf nga ne ci kaw ngaa dem. ana dem. Ah, mu ne dem jekki rek de. mu ne rek de. jekki rek mu ne am na koo xam ne nag. bu ne yàlla faa bëgg mu faju. bu ne yàlla faa bëgg mu faju. fañ koy wax ne dana faju. mu xam ne dana faju. mu xam ne dana faju. kon kooku li bu jógee fu mooy jëmati. buñ leen du faju. buñ leen du faju. sa xaltu dañ génn de. kon yaakaaroo la de kon yaakaaroo de. foofu nag. mu ne foofu la nag. duut ñëpp fa yegg. ne duut ñëpp fa yegg de. mu ne ñëpp it duñ xem. ñëpp it duñ xem de. mu ne loolu la du am de ñëpp xem. mu ne ñëpp duñ xem de. mu ne mos daam. te du am. Ah, ata yowmal xiyaam ñëpp du ñu am yowmal xiyaam ne yowmal xiyaam ñëpp du ñu am ñëpp du ñu am waaye kenn ku ne waaye kenn ku nekk sa bët yi ak sa sa bëgg-bëgg ak sa bëgg-bëgg ak li nga bëgg ak li nga bëgg dañ la ko defal fi nga bëgg fi nga ne dañ la ko defal fi nga ne ba doo ñëwee kenn soo jogoon soo jogoon ci ku la ëppale dem ci ku la ëppale dañ wëlbati dañ wëlbati kooku liñ la defal yow liñ la defal yow la la kële ëppale ëppale boo demee ci këram boo demee këram dañ wëlbati dañ wëlbati lam la ëppalee duñ la ko wane loolu yow dootuñ la ko war la nga xam ne sa kër ba ko fa rek loolu lañ laa war ba doo ko ñëwee moo loolu tax ñeete du am foofu la waaye ëppalante am na fa de waaye yow mi nga ëppale doo ko xam de su la ëppalee moo ndax su la ëppalee yow fañ la ko nëbb lim la ëppalee wan wan la li nga ne la ci lay la am doo ko ñëwee bu dee maarifatu billaahi mu ne su fekkee maarifatu ko gën a xam ko gën a moo de xam ne ne moo la ëpp maarifatu billaahi moom moo koy xam yow mi xam yàlla ni moom waaye yow mi xam yàlla ni moom lim la ko ëppale ëppale yow doo xam ëppaleem gi fañ la koy it mu ne fañ la koy it mu ne ku ne jël sa xam mu ne fañ la koy it ku ne jël sa xam ku ne jël sa xam mu waaye du tax de du tax de du tax de nee gi mënta de ba ngeen ba ngeen a bokk maqaama. mu ne ba ngeen de bokk ma. man ngeen a bokk maqaama. waaye du ngeen yem de. ngeen bokk ma xam bu ngeen amee. Ah. te du ngeen yem. Ah, te du ngeen bokk lu ngeen di gis. bokk lu ngeen de gis. Ah. bokk lu ngeen di mos. te du ngeen yem. te du ngeen yem. ne ndax mu ngi gën a saxee ci liman bi. ak xawfu bi ak rajaaw bi. ak xawfu bi ragal gi ak yaakaar gi. la gën a ragal. ku la gën a ragal. gën jege. gën laa jege. ne ku la gën a ragal gën laa jege. bu la gën a ragal rek gën laa jege. ragal yàlla nag. Ah. nee du wut jaan ju dikk. nga de daw de wuteet. loolu ragal jaan ji ragal rek. féeg ba nga nga ko ragal. ah, ah loolu rek la. bu dee wuti bu bu bu ko nga ko ragal. waaye soo ko ragal a toog. parce kon loolu la amul solo. loolu du ragal. mu ne kilifa ragal. mu la mu la mu la nee. yëg ne mu ngi la nee ñu la. nee la ñu la nee la ñu nee la ko su te mënu ko raw. te mënu la koo raw ko soo ko raw looy def. ko la soo ko ragalul dara nooy def. te te la du la du la yëglu. te la yëglu. du la yëglu dëgg la du la de. du la yëglu moom mu de. mukk du la yëglu mukk xamul mënoo ko bëri pexe bëreewu la ko ba mu yëglu la du la waxal li mooy def li mooy def it su la ko su la ko waxoon it dana am lu mu la ca yit dëgg la dana am lu mu la ca lu mu la loo xam ne doo ko xam doo ko doo ko doo moom doo ko doo ko doo moom. mu ne doo ko doo moom. déedéet doo moom. déedéet doo ko fexe. mënoo na la ne. na laa xabal la ne. waaye du laabal boppam de. déedéet du laabal boppam de. doo ko doo moom na la ko xabal. dara jëm ñoom. dara jëm ñoom mu ne doo ko doo de. doo ko doo mu ne loolu du ko xable de. mën na laabal na laa xabal nag lépp. loo wax mu def. loo mu def. waaw loo loo junj mu ne waaw mu ne waaw. am ne. na loo xam ne. lu ko yoon ma nga gis ku ku yàlla bëgg a bëgg. mu ne man ndax mos ngaa gis ku yàlla bëgg a bëgg. fonk ko jox ko cër jox ko cër. bina la kay doom. ba la ko bina la kele doom. loolu du koy def moom mu ne loolu du koy def. doom du ko sant kenn. mu ne doom du ko sant kenn. defal ko nit na ko defal ko nit. déedéet. loo xam-xam daraja. loo xam-xam daraja. mën ngaa ñaan nit ki am doom. mën ngaa ñaanal nit ki mu waaye ñaan ngay man de. ñaan ngay man de. ñaan ngay man de. ñaan ngay man de. ne bakkan mën naa am foo xam ne. fañ ko dig waaye bakkan biñ dig. waaye bakkan biñ dig. ci kaw bu bu defut nangam. ci kaw bu defut nangam. boobu la nit mën a delloo. mu ne boobu le moom la nit mën a delloo. bakkan biñ dig. waaw. ci kaw bu bu defut nangam. bu dig ba jotee. mu ne boobu la mënees na koo delloo. mu ne waaye bi nga xam ne fa ko bind. fañ ko bind. ne dig nañ ko. ne dig nañ ko. bis sangam bu defut nangam. bis sangam bu defut nangam. bu fay dee. bu bu defee loolu. bis ah. boobu la bu defee loolu. du dee fekk ñu foog ne dat ba lañ wéyale. mu a waaye dat moom du wéy. sarta ba tax ndax sarta ba moo tax. sarta a sarta ba wéyul xam nga. mu ne sarta ba wéyul. fekkoon sarta ba wéy. bu fekkoon sarta ba fa wéy. bu dat ba jotee mu jóg fi. waaw ah, waaye wax ne. Ah. mu ne day waaye day wax ne. diw bakkanam dana jeex. diw bakkanam dana jeex. fekk saraxewul nangam. fekk saraxewul nangam. bu saraxee loolu. mu jot nag mu ne waaye bakkan biñ xaj ci bu saraxee nangam sarax bakkan boobu la mën a jot boobu la la mën a jot de mu ne boobu la mën a jot boobu la mën a jot mu ne la mën a jot de lawliyaa yi nag lu ñu def xamut mu ne lawliyaa yi nag lu def xamut de mu ne waaye faam nuñ koy defee de faam nuñ koy defee de maa lay maa lay mu dana ànd ak ay taalibeem. dana ànd ak ay taalibeem. ñu war ay gëlëm. waaw ñu war ay gëlëm. da dem. buñ demee ba ci yoon yi am taalibe ko daanu. ba ci yoon yi am ci taalibe yi ka daanu. ñaari lu puy dem. ñaari lu puy dem. waaw kooku mënatu la war. mu ne kooku la mënatu la war xam nga. ñii raw ko. waaw ñii la raw ko. bañ demee ba fa ñooy dal. mu laajte ko. ñu ne ko kooku la day gëlëm ko waroon fa daanu. ñaari tànk yaa damm. nii la def rek ne sama taalibe bi na ma wóosi. mu nii la def rek ne sama taalibe bi na ma wóosi. ñu seen taalibe baa ngi war ci gi de dikk. tànk yi nañ ma loon mu ne loole karaama la mu ne loole mën naa am de mu ne loole mën naa am mu ne loole mën naa am de mu ne loole mën naa am de moo tax mu ne faaro ko xëyee bala naa am de mu ne loolu yooyu la mën naa am de mu ne mën naa am de mu ne moom daal sunu mbokk ab taalibe la nañ ko ñaanal ñu ñaanal ko yàlla boo ko ba ko fi. ba lim bëgg ci moom. mu am loolu le. mu ne loolu la bëgg na ko de. ñu ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ko fi ba lim bëgg ci moom mu am ko. mu ne li nga xam ne. xelam dajoon na ko ci moom. yëpp am. mu ne loolu bëgg na ko de li xelam dajoon ci moom lépp am. mu ne moom. góor gi am na lu xelam dajoon ci moom de. mu ne loo xam ne. bëgg na mu am. mu ne loo xam ne bëgg na mu am. mu ne góor gi daf daan wax li nga xam ne moom la ko nit ñee wax. bu mu nekk tuuma de. bu mu nekk tuuma de. naam. ma it bëgguma bëgguma ñeewa. mu ne moom it bëggul li nit ñeewa. defalam rek waxi neen rek. defalam rek nekk ay waxi neen. mu ne bëggul loolu de. lu wóor daal la wóor mu la moom la bëgg. digg bëccëg. ni jantam njoloor. mu ne la bëgg de digg bëccëg. waaye kumpa rek. mu ne waaye rek. mu ne de waxul loolu de. lu wóor warang de la bëgg mu ne moom daal sant na bu baax de ne xolam set na rim moom ñaan yàlla rek déwén fekk ñu fi fekk ñu fi ci jàmm yàlla may ñu nawet ba gën a baax bi liñ ci am ñu lekk ko tey it nag nañ sant yàlla de ba baax a baax a baax nañ sant yàlla mu ne yàlla su la mayee da nga ko naan alhamdulilah yi de mu dolli la. waaye gerte na. waaye koo ci laaj mu ne ah gerte gi de meññ na. waaye feesu. waaye waaye wu. mu ne waaye góogle. moo yàq moo yàq cant gi de. moo yàq cant gi de. mu ne bu cantaa moon dëgg. waaye du ci tegee de. ndax meññ na nel meññ na rek. waaye ah. laajaguñ la leneen. déedéet comme laajaguñ la leneen noppi ci loolu la. mu ne moom nañ sant rek. amul ci mu ne amul ci kenn ci ñun ka man bind doomu gerte wallahi mënu ko. kenn ci ñun mënu ko. kenn ci mënu ko. mu ne waxut nag leneen. wala yow mënu naa bind doomam gerte. nga foog doomam gerte ba wow dénk ko ko. moo koo xam ne xalaamul xuyóob la. mu ne ko setantal da ko defer. ba mu yegg si fi mu yegg si. mu jox la ci ay doom. benn doom ba nga ko joxoon. mu jox la ca doom yu bëri. am ci boo xam ne. fa xaw a ñett rek. fa xaw a ñett. waxat na sosoo it ba tey. laxe du am. Ah. man ndax laxe du am ah kay. man de moo juddoo. mu ne moom de ba mu juddoo. daan xolli gerte daan xolli gerte. daan wax ne yaa moom laxe ji. fañ daan wax ne yaa moom laxe ji. maa moom kemb maa moom kemb. ñu ne ana fuñ ko teg. ne lépp de fees du dell. mu ne de. du tey du ne. du ne it abadan. mu ne du def loolu de. Ah, ne li ñu yàlla sant ba mu mat sëkk. defuñ lépp de defuñ ko te moo ñu bind. defal li ngeen ñenn nag ñenn ah. dana leen defal yéen li ngeen bëgg. ni ngeen ko bëggee. kéem ni ngeen ko bëggee la ngeen na ko defee. loolu du ko def loolu du ko def de. mu ne loolu moom. doo sëñ doo du dara. mu ne doo sëñ ñaanit kat. sëñ am na lu mën a ñaan ak a ñaan sëñ na lu mën a ñaan ak lu mënta ñaan. am na lu mën a ñaan ak <laughs> am na ne boo ko ñaanal ma na ne soo ko santee sëñ ko ñaanal ma ko. nee du ko ñaan de. ñemewut a jàkkaarloo yàlla da wax loolu. ñemewut a jàkkaarloo yàlla mukk da wax loolu ko de. soodu ilaay. ne soodu ilaay. kenn ñemewut koo def. kenn ñemewut koo def. yombut. mu ne seedewu yàlla yombut. aarifi ne yi. ne aarifi ne yi. na ñoo xam ne dañ jot. na ñoo xam ne dañ jot maqaama maarif. dañ te duñ jot maqamam sóot maqamam sóot ko dëgg dëgg dëgg maqamam sóot mooy seedehu yàlla dëgg dëgg nekk ko jot dëgg xam na loo xam ne mokk ñemu laa jàkkaarloo yàlla da ko wax mokk sa xel du ko daj sóoru mu ne seedewu du mooy du mooy lim dafa yow face à face man ndax loolu la ñeme nga koy def ak buur ba xam ni yàlla naan ko gerte gi de meññ na waaye nangam mu ne ndax loolu ni ñemewuna neen Cherif Abdou Moutalib. dafa am ñu dem daaw ne. nee dafa am ñu fa dem daaw ne. te moom ñu ne. ñu ne. nawet bi xat mi day fa jafe. xat mi day fa jafe. mu ne leen bu ngeen demee ngeen Alaaji Basiru leen bu ngeen demee ci Alaaji Basiru Ndaw. ne leen ko ñi de wax xat mi fa jafe. bu ci bokk de bu ko làmmiñam wi laal mukk <laughs> bu ko làmmiñam wi laal de. xam-xam moom li tax xam-xam ko xam na mu ne moom la tax mu wax xam na ko. dëgg la dëgg la ah, mu ne kon ñëwul loolu moom. mu ne moom kay <laughs> mu moo tax su déggee waay ji. Ah. na nga fay dog de. waay waay waaw waaw daal su fi mu ne waaw wóole a jóg. Ah. bu laajee rek ñu ne alhamdulilah moo gën moo gën de mu ne waay waay waaw gi daal koo ci wax rek mu saxal ko koo ci laaj rek mu saxal ko <laughs> mu ne koo ci laaj rek de mu saxal ko meññ na de waaya